Moussa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen jaajëfal di leen wax sant ngërëm ñeel na leen ci liggéey bu mucc ayib bi ngeen di liggéey entre ñun ak yéen. parce que site yi wax dëgg yàlla bi ngeen ñëwee aussi jëmmal ngeen lu bari parce que munu munuñoo dem sans yéen yéen tamit munuñu mënul leen a dem sans ñun ah, kon ñu leen di jaajëfal rek di leen wax ni. na rafet saa su nekk rek. waaw sama relation ak Laye Ananas nag Abdou Aziz Ndiaye moo koy indi Abdou Aziz Ndiaye géwél bu civilisé moo ma présenté Laye Ananas ñu waxtaan xam nga nit boo waxtaaneek moom rek di nga xam. fan la bëgga dem mu nekk nit ko am ambition nit ko am yéene ci réewam nit koo xam ne dafay dimbali ay ndaw te euh, Sénégal dañuy xale yi ñooy yaakaar réew mu suba te ñu xool jeune Sénégal ba ñu liggéey dara yéemu ñu liggéey dara kon bu amee koo xam ne dem na Europe Europe xaw a tane ci moom yàlla def ko mu xaw a mën a gan ka macha allah mu dellu si waat dëkkam albatiku waat dëkkam ne xaaral ma jàppale sama jeune dëkk rawatina waa Pikine wax dëgg yàlla dañ koy jaajëfal lu mu wootee war nañ cee mën a teew ñëw teew jëmmal bisam parce que nit ku baax la nit ku bëgg réewam la parce que Sénégal boo fi nekkee di di di créer ay emploi rek jàppal ni bëgg nga sa réew quoi nit ku baax mhm. moo di na ci 40 tamit mi ngi mi ngi def jotul li nga xamante ne waaw loolu loolu sànq maa ngi koy wax léegi ñuy lancer un appel rek parce que euh, ñuy euh, di di mal président Macky Sall ndax moom moo ñu bokk jaboote mooy suñu njiitu réew ñun ñëpp ay jabootam lañu kon donc bu gisee koo xamante ni nii mi ngi mi ngi bay waaram si réew mi mi ngi def lu mu mën si réew mi mi ngi jàppale jeunes yi wax dëgg yàlla moom it dañ koy dañ koy tàllal ay loxo rek ni ko mu jàpp ci parce que bu jàppee fii lay ananas jàpp fii keneen ku mel ni lay ananas jàpp fii keneen ak keneen jàppaat fii defe naa jeunes yi seen euh, seen seen seen coono dina wàññeeku seen i coono dina wàññeeku ndax ku ne xam ne ni jeune Sénégal bëgg nañu liggéey am nañu jom am nañu ambition mais dañoo amul fu ñu liggéeyee wala soit dañ ko gisul parce que yéemuñu liggéey dara ah, maa ngi koy wax léegi yéemuñu liggéey dara soo demee ci marché yi xale yu góor yi nga fay fekk ñuy jaay jën nga dem fekk ñu daw ba sonn lépp ngir bañ a sàcc wala bañ a def loo xam ne naka sudul noonu la kon donc bu ñu ameen bu ñu ñu mel ni laay ananas wax dëgg yàlla réew mi dina am fu mu teg ñuy ñuy ñuy lancer un appel rek di wax président de la république mu jàppale ko gerte suñu mel ni ñoom mu jàppale leen. macha allah macha allah dañu dugg ci li nga xam ne nii moom moo di aar. Euh, ñu ñëwaat ci tuuti rek balaa gis nañ ne actuellement euh, aar dafa am lu ko mën a muy téléfilm ak. théâtre ñu gisoon leen ci théâtre jékki-jékki téléfilm bi ne xam nga bu njëkk ba dañ daan def euh, théâtre boo xam ne cooptation la doon doon dañ daan dem RTS moom moom moo fi nekkoon comme télé bu ñu demee RTS euh, ñu defar ay décor ñu ñu joué ci léegi nag art dafa am fu mu toll dafa am fu ko nit ñi jëlee am fu ñu ko yóbbu kon boo ko dee bëgg tëkkale dafay xaw a metti parce que ñun fa ñu tolloon fa ñu tolloon di théâtre ak fi xale yi toll léegi du benn parce que jamono dafay dox. lan mooy différence mooy xale yi léegi osé nañu ñi ngi def lu leen neex ñi ngi wax lu leen neex am na yenn théâtre yoo xam ne munoo toogandoo ak sa yaay ak sa papa seetaan ko mënul nekk te ñun bu ñu fàtte ni ñun ay ay nitu valeur la ñu dañu dañu am suñu ay valeur am ay kilifa yoo xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo tëdd ci ci réew mi ku ci mel ni sëñ Touba Xaadim Rasuul ku ci mel ni Sidage Malick ku ci mel ni maam bu Boukounta maam Limaamu Laay Yoff euh, ak nit yu bari yooyu daal nit ñooñu bu ñu fa tëddee di ay kilifa diine ñun def lu baax rek moo ñu war ñu baaxal ko ba mu baax te ñu rafetal ko duñ leen critiquer nag duñ leen critiquer parce que ñun ñi ngi woon ci théâtre ba léegi tamit ñu ngi ci téléfilm yi kon donc loolu sant yàlla la parce que nekk nekk ci benn métier presque nga def ci 22 ans de carrière xale yi ñëw fekk si la ci te teewul ba tey ñu ngi lay tudd kon loolu sant yàlla la mais nañ ko rafetal ñu xalaat suba ñu xalaat ni dee dafay ñëw xalaat suñu image yu ñu war a tegal suba bu dee ñëwul yàlla na yéex aussi ñu xalaat ni dañuy am ay njaboot dañuy am ay doom est-ce que téléfilm théâtre théâtre mooy théâtre sur scène loolu mooy théâtre gis nga théâtre sur scène ku ko mënul mën a goo théâtre parce que théâtre mooy gindukaayu doomu aadama nit ki day woon euh, seetoo ngi woon nit ki boppam nu mu doon ndax boo jàkkaarloog seet da nga gis sa bopp théâtre gindukaayu doomu aadama la noon la mel théâtre sur scène mooy théâtre tey téléfilm bi ñu doon def suñu demoon festival Europe duñ ko fa yóbbu mënul nekk sax c'est impossible mënul nekk suñu demoon tey festival Europe duñ ko fa yóbbu non non non ko fa yóbbu théâtre sur scène mooy théâtre bien vrai que xaw na ko rey tuuti xam nga lu tax imagine toi tey boo wootee woon Sorano kenn du la wuy si boo wootee woon Grand Théâtre kenn du la wuy si te bu njëkk ba ku ci mel ne ay daare ko ci ay jamonoy tey euh, ay jànqeen yu njëkk yi daan nañ toog benn moment ñu organiser anniversaire comprendre nga woote ñi dëkk Dakar woote Sorano ñu ñi dëkk Thiès ñu woote promenade des Thiessois mu fees dell mais nit ñi amatuñu temps boobu téléfilm xam na xaw na kii tuuti mais lu mu ci mën a doon rek man liggéey laa ko teg mais na rafet man sama problème noonu la mooy na rafet na kàddu yi yiw ñu woddu kàddu yi

fa ñu tolloon ci aar ak fa mu nekkoon ak actuellement bi ñuy dab suñu ay doom ak suñu rakk aar nekkatul foofu aar dafa dafa dafa avancé lu bari kon donc boo leen ci bëggee jugé dafay xaw a doy waar tuuti wala nga wala nga xaw a naa fekk tuuti mais limay wax rek mooy kii bind na bind lu rafet ki ñuy jox texte muy joué na xalaat suba man loolu laay wax parce que Evenprod effectivement def na infidèle man maa ngi Evenprod di liggéey actuellement def na infidèle mais boo doo seet infidel mi ngi doom dawandoo ak mbetteel infidèle mi ngi doon dawandoog idole infidèle mi ngi doom dawandoog Pod et Marichou mais li lay won ni sénégalais yi des fois ñooy bëgg dara ba pare di kaas boo mësaan a dugal infidèle dugal <laughs> infidèle mooy ëpp ay vie nañ waxante dëgg moo du mu ëpp ay vie parce que ñoom ñoo bëgg loolu ba pare après ñoom ñooy albatiku di di di di kaas sénégalais moo bëgg boo gisee boo boo théâtre wax wax ci lu xaw a dépassé sax nit ñi moom la ñu gën a bëgg que yow mi wax wax bu rafet. si foofu la réew mi toll nit ñi loolu la ñuy gën a bëgg que yow mi wax wax bu rafet comprendre nga mais bu ñu bu ñu ñu bàyyi xel ci rek suba dafay am ñu bàyyi xel ci buñ fi jógee yàlla yéex dañuy teg suñu ay image benn ñu bàyyi xel ci aussi yàlla mën nañu may gudd fan ba ñu màgget dañuy am ay doom te image yi internet day denc internet netul loo fa dugal fa la netul dafa non non non man dama man man sama aar bi ma koy joué dafa am fu ma ko teg parce que man benn mooy dama dafa am famille bu ma bokk man doomu géwal laa doomu géwal laa bokk ci famille géwal bu baax ba pare li may sóor suba man daf may sonal tuuti li may sóor suba daf may sonal parce que bés bu la xësaraw boobu bés dem na mais beneen bu ñëw xamoo lu mu àndal suba suba yàlla la kenn xamul lu ciy xew mais mën nañu doon lu ne suba ñu sóoraale loolu Even liggéey naa fa ñaari série actuellement maa ngi liggéey ñoom ci muñal maa ngi liggéey ak ñoom ci ci Fake Life mais aussi image yu nit ki dafa am solo ci nit ki parce que ñoom biñ ma woowee parce que event pro nag maa lay leeral amul ku fa mës a joué te xamoo li nga war a joué ah soit yaa koy nangu nga bañ ko mais ñoom boo dikkee dañ naan la lii laa soxla ndax bëgg nga man bi ma dikkee maa ngi fa fekk shérif ma koy tooñ naan ko yéen dama leen a ragal loo leen ma joué loo mais liñ ma jox dafa méngoo ak man moo tax man la image dafa am solo ci nit dafa méngoo ak man boo xoolee ci euh, ci fake life maa ci nekk yaayu faay dara xale yi ci internet bi ni ñuy duggee parce que xale yi à chaque fois ñu nax leen ci internet bi te teewul dañ koy gis dañuy moytu mais dafa mel ni bu ñu leen waree naxaat dañuy fàtte bon donc man maa si nekk mère de famille bi nga xam ne maa redressé xale yi maa ci nekk yaay faa ay dara muñal maa ci nekk bàjjanu am Amza kon ça veut dire que ñoom ni ñuy defee ni defee woon infidèle nit ñi di ko coow noonu la ñu mën a bindaatee aussi série yu baax aussi série yu baax nit ñi di ko di ko di ko kii mais infidèle bien vrai que nit ñi critiqué woon na ko man bi ma fa demee loolu laa njëkk a wax Moustapha ñi leen gënoon a contre man ci laa bokk waaye man bëgguma di ŋàññi sama naaw la ci internet loolu njëkk a wax Moustapha mais bi ma expliqué comprendre naa bien vrai que fi mu doon laal metti na te yemul ak suñuy aada ak suñuy cosaan mais aussi mbaa xam ngeen ne lu am la dafa naqaree laa rek mais lu am la. macha allah waaye nag Bella euh, bu ñu nee aar dañuy dugg ci li nga xam moom moo di musique sénégalaise euh, décembre bi gis nañ ne yëngu ki nga xamante ne moom moo di album bu 16 euh, titres gis nañ ne askan wi ñu ngi laam-laamee ñaari album yooyu ban album moom moo dàq yow ñu bëggoon xam exactement lan mooy sa point de vue ci li nga xamante ne moom moo di album Wally Seck ak nga xam ne moom moo di Papa Diouf. gis nga kii liggéey Wally ku ne xam na ni ndaanaan la ndaanaan la nekk nit ku baax nit ku rafet xol nit ku mën a def lu baax ci askanam Pape juuf ku ne xam na ni ndaanaan la woykat la mën a mën a mën a mën a mën a mën a def lu baax yaru doo ko dégg ci dara Pape juuf doo ko dégg ci dara doo ko dégg ci dara nit ku yaru la ñu moytu yaa mën ñi fi des ndax ku ne am na ku la saf loolu lañuy ñuy sóor nañ bàyyi yaa mën ñu fi des ku ne am nga ku la saf man am na ñoo xam ne maa leen gënal Wally Seck am na ñoo xam ne man maa leen gënal Youssou Ndour te pourtant man Youssou Ndour ak Wally rek laa bëgg mais am na ñoo xam ne bu ñu tegoon Wally Seck xam nga boo ko waxee suba ñu teg ko ci internet bi ñu saaga la mm-hmm. mais damaa bëgg ñu dégg fi mu wax ak ku ci nekk am na koo xam ni moo la neex am na koo xam ni bu paab Diouf taxawoon di yuuxu sax Pape Diouf a ko gënal téeméeri woykat yu woy Sénégal am na koo xam ni bu Wally Seck taxawoon romb rek sans woy sax Wally Seck ko gënal képp koy taxaw ci Sénégal Sénégal dañu baaxoo benn affaire muy dañu xaw a tardé ci yenn dañu xaw a tardé ci ay détails ñun dañu bëgg xawuñu tardé sax dañoo tardé ci ay détails ñun dañoo bëgg détail parce que waale mi tax nga jël sa temps di détail waale ngay liggéey xaarul kenn ma ngay def lu baax di teral ndayam defil ni moom Pape Diouf mi ngay toog naan kii moo dàq dugg ci internet bi dagg saaga wax lu la neex Pape ngay liggéey Pape ngay wut lu mu terale yaayam Pape fexe na ba ñëpp ni yaru na waale fexe na ba ñëpp ni kenn moom du tontu lu ko nit wax baax na waa léegi ñaar ñooñu nga xam ne dañoo jël seen yoon di liggéey ne ci seen bopp yow lan nga ci loo ba wartaa mën a wax toj pénc moo xam ne àdduna yëpp dañ lay xeeb ñun sénégalais yi ñoo war a nite ku nekk sañ ngaa bëgg ki la neex ku nekk sañ laa bëgg ki la neex Pape Diouf kasetam bi dafa neex lool déglu naa ko Wally Seck ku nekk xam na ni yaa wuy la woyoloog la woyoo bi la dëkk kenn werantewul lool nañ waxante dëgg amul dàq dama ni la amul dàq dama ni la nañ moytu yaa mën ñi fi des ndax ku am nga sax ah non non non non non Pape Diouf dama koy déglu non non mën a dugal nag <laughs> xam nga nit ko taxul ma bañ Pape Diouf nit ku nekk am nga koo xamante ni nii moo la gënal man Mandiaye Seck sama cousin la sama rakku papa ko jur comprendre nga li ma wax nit ku nekk am nga koo xamante ni nii nit mën nga ko bëgg waale mën naa mën naa ko bëgg sans woy mën naa ko bëgg ndax xol bu rafet ak def lu baax Pape Diouf mën naa ko bëgg ndax yaram yaa ngi may dégg hmm. xam nga waali réewul mais xam nga déggoo sànq ba léegi su ma lay yaru dama naan Pape Diouf damaa bëgg ngeen dégg ma wax waxu leen ak dof de mhm. te xam naa ne ay dof waruñu ma waaye ay jaxasakata ma wër <laughs> ay dof waruñu ma waaye ay jaxasakata ma wër comprendre nga xam nga sànq ba léegi su ma nee Pape Diouf dama naan dafa yaru pourtant waali reewul mais Pape Diouf ku ne xam na ni étiquette am mooy yaru mooy cool comprendre nga waali boo nee waali looy njëkk xalaat ci àdduna mooy def lu baax def kat lu baax moonte taxul Pape Diouf di def lu bon de nga mën wax dafa neex mais am dégg ko raw damaa bëgg ngeen may dégg fi ngeen waxee te man mënu leen maa jaxase gis nga yéen ñi ma wëri ñëpp wala ni ki ci man boo leen a jaxase man maa leen jaxase réew mi eh, dégg ngeen nee na waali defkat la dégg ngeen lu wax nee la waali defkat la non defkatu lu baax la la ah, def lu lu baax la taxul Pape Diouf bañ a def lu baax comprendre nga defkatu lu baax la mais taxul ñu ni Pape Diouf lu def lu baax mhm. mais parce ba léegi maa ngi naan Pape Diouf man leen dafa yaru parce que nit ku yaru la comprendre nga li ma sëy waru daal la fa muy daggee du fa lay neex bakkan la bakkan la sëy bakkan la parce que ku sañoon boo bàyyee góor ñëpp mal benn góor ni fa ngay sëy dëdmal benn góor bàyyi góor bu am alal bàyyi góor bu am situation bàyyi góor bu bokk ci famille bu baax nga bàyyi ñëpp yow noo tudd ma bàyyi ñëpp dëdmal Saliou ni moom laay sëyal pourtant bàyyi naa ñoo xam ne ñoo ma ëppal njariñ Saliou bu ma sañoon dama fay toog parce que defe naa sëy xare la saa yoo ci juree doom jam nañu la sëy dafa bett saa yoo ko mënee rek sëyal ba dee mais soo demee ba jur fenn doom parce que ne ko woon ginnaaw amoonu la neex mais bul fàtte ni nag sëy dagan na fase dagan na mais bu ñuy tas yàlla nekk mu nekk tas bu rafet mais loolu bu ci kenn jugé nit parce que ku sañoon fi nga sëy fi ngay toog xale bu góor bu sañoon buntu kër yi nga romb yëpp takk benn xale bu jigéen boo sañoon doo ci gis dara la ndaxale ba baatu fase di jib seen diggante ci li ma yaakaar sama xalaat bu gàtt sama bu tuuti. yow concurrence ngeen ko teg concurrence waale Pape Diouf ngeen ko teg yéen ku ne xam nañ decembre artistes yëpp dañuy génn cassette yéen boo leen ko tegee concurrence yéen a ko bëgg a teg concurrence album album yi ah, xoolal non non non xam naa ku ne xam na ni décembre ñii dañuy génne single ñii def album loolu moom ku ne leer ay décembre génnewul ay décembre génnewul keneen ak keneen génnewul jibaa génne na jibaa génne na sori baa maa ngi dégg benn single mais nit ñi ñi ngi génne décembre la bu leen ko wékk ci waali ba yow ay sa ngeen di wax yéen yéen ko indi. waaw loolu mooy doxal musique non si yéen ko indi xam nga lu ko indi yéen coow fu mu yegg yéen a ko fa yegg baax ngeen nag. mais loolu mooy doxal. non nga waaw bàyyil ma ñëw xam nga lu tax xam nga lu tax bàyyil ma ñëw. waxoo ko maanaam ñaari album yi liñ génn. waaw waaw waaw bàyyi leen ma ñëw pourquoi ngeen teg Waly ak Pape Diouf moom laa mënta comprendre du ak Pape Diouf doo nga génne ñi génne single bari na. Sidi Diop mi ngi préparé toog na dem ba bëri dem deux ko. Mhm. comprendre gis nga yéen depuis Wally génn ba léegi ñu ngi naan Wally Pape Diouf Wally Pape Diouf Wally Pape Diouf c'est vrai que ni loolu dafay dundal musique mais Pape Diouf war na close wax i toog na bërki démb ni Wally rakam la si si déglu naa lépp <laughs> ça dépend ci nit ki bi ngay bëgg rek non dégg dégg sans ma la wax ça ci nit bi ngay bëgg waaw Bella ñu ngi soro sorxo sorxo de. <laughs> ñu ngi sorxo sorxo ku daloo. doo leen déglu rek. man sama chanteur préféré Youssou Ndour Wally Seck man ñoom ñaar man bi ma nekkee xale pour te dire bi ma nekkee xale xam nga man musuma musuma dama mës a rëy làmmiñ mais musuma sopp comme ay baalu xale yii nii mbokkandoo ci koñ musuma ci participer léegi ñoom Aziz Diaw ak ñooñu suñ ma mësaan a bëgg a dóor buñ ma invité baal ma bañ su ma rombee dañ naan Youssou Ndour mënta way ma saaga leen ñu dóor ma ba ma ne waalee parce que foofu rek lañ ma mën a dóor parce que man dama bëggoon Youssou Ndour bi ma nekkee xale dama amoon album boo xam ba léegi mi ngi man sama benn photo photo Youssou Ndour bi may jàng école bu Youssou Ndour mu sant tëgg concert Thiès du ma du ma du am paas ndax sama yaay dañuy tere dama daan dajale sama 200 200 ndékki balaa Youssou Ndour a ñëw ma jeex tàkk balaa Youssou Ndour a ñëw ma jeex tàkk mais naa dem comprendre nga waali bon ñu xamante ci ay anam mais mu nekk nit ku baax nit ku rafet xol nit ku yéen yéene nit ñi jàmm kon nit ki li nga ko xamal rek nga koy nga koy seedeel Pape Diouf mës nañu daje ci benn hôtel ma ànd ñu dem jouer ji Saali mu nekk nit ku yaru nit ku am dal nit ku am nit kon donc li ma xam ci ñoom laa leen mën a seedeel mënu ma seedeel mënu ma leneen Pape Diouf kuy laam-laamee mën woyam ci Sénégal gi wéroo parce que ku ne xam na ne Pape Diouf dafa mën a woy ku ne xam na ne Pape Diouf bu dee su dee fo sax dafa mën a woy am na bi mu naan euh, dama fàtte moo bi de sinap naa ko sax bi mu naan yàlla ya déedéet pas lébulu yàlla yàlla dafa def nit mooy bi mu wax genre nit du iñaan yàlla moo lay def ni nga war a mel boobu moo ma ci gën a neex boobu moo ma ci gën a neex waali daraam soofu ma damay gàttal waali daraam soofu ma en tant que waali ma laa bëgg xanaa gàttal naa ko waali daraam soofu ma waali bu taxawoon fii di sànni ay xeer sax bëgg na non pas Wally Seck moo la gën a Pape <laughs> doo leen ko affirmer nekk xam nga lu tax du xam mën naa am ni ma xamee Wally xamee ma ko Pape Diouf da ngeen di déglu li may wax ni ma xamee Wally peut-être xamuma ko xam bu tax muy wax mais daan lañu wax téléphone Pape Diouf mosuñu wax téléphone kon li ma mën a seede ci Wally bu Wally toogee Wally benn jour daf ma defal acte bu ma neex sama caatu yaay daf ko bëgg bëgg bëgg ñu dajeeg tonton Moussa mu paas ma ko téléphone ñu waxtaan ma ne ko sama caatu yaay dalaa bëgg day def examen maa bëgg mu am bac daf ko woo téléphone ni ko góorgóorul ba am bac Anta Sène Ndeye Anita Wally ni ko soo amee bac man maa ñëw seen kër bien vrai ko loolu amul mais xale bi góorgóor na ba am bac ndax Wally Seck loolu nit ko baax moo koy def te loolu man Wally defal na ma ko daf ko den ma boo ñibbee woo ma jox ma numéro ma yegg woo ko munu ko boo amee bac man maa ñëw seen kër góorgóorlu ba am bag kooku bi mu amee bac bi mu dikk xam lu ma njëkk a wax yaa waxoon Waly Seck dina ma seet si nga loolu mën naa ko seede ci Waly Seck mënu ma ko seede ci Pape Diouf comprendre nga du kii nga bëgg ak kii nga ñàkk a bëgg nañ bàyyi yaa mën ñi fi des ndax ku ne am nga ku la saf damaa mën a daax saf di quoi damaa bëgg laaj ndax aw ma jëkkër boobu balaa ñu ngi lay jaajëfal man dama sax man dama ma ne dama soxla soxla moom moo dàq posé ay question yu metti ku ndaw ki ah ku ndaw ki Abdou Aziz Ka ah. ngi lay jaajëfal baa ngi jaajëfal lu tax damaa xam ni euh, heure bu ma ko waxee nag ñu xas ñu ñu xas ma ci ñu bon ñu waaye di ñu quoi parce que man nit nit de daf xamul dara parce que jigéen je pense que mënta mel ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu bëgg a mel moom moom boppam parce que nit sa bopp dina la neex man sama bopp daf ma neex avant may neex kenn man sama bopp jikko yi waaw jikko yi ma yor man daf maa neex sama bopp daf maa neex man su ma sañoon su ma amee doom ni man lay mel parce que jikko yi ma yor man awma fenn ay kii mooy sama sama idole man sama yaay aja ajarul ajal mbay moom man ci moom laay royee jikko yi ma yor te damay ñaan yàlla bu ma amee doom yàlla na am jikko yi ma yor kon donc man sama bopp daf maa neex comprendre nga kon donc doo am yenn kii yoo xamante ni nii Sénégal gépp ngi la ko seedeel sëy jot nga ne doo sëy amul sens jigéen dafa war a jaboot jigéen dafa war a am ay doom dafa am koo xam ne jigéen fa la yem man aar ah, teewu ma sëy su ma gisoon jëkkër suba damay sëy dem concentré wu ci sama sëy parce que war naa sëy war naa am doom mais nit ñi duñ ko déggee noonu des wax nit génn xas la wala mu wax la lu ñaaw gis nga jëkkër ak dee ak alal ak doom ñooyam mbir yàlla la da nga koy bàyyi yàlla yëpp mbir yàlla la waaye yooyu yàlla da koo téel boppam da koy bàyyeek yàlla aw ma jëkkër ñeew ma ko am jëkkër ñi am jëkkër lañuy ñuy faj peut-être seen ndey wala la mën mënuñu ko laa mën a sama ndey. mais boo gisoon jëkkër tey di nga sëy. ah bien sûr lu tax su ma ko gisoon waaw man boo gisoon jëkkër bu ma sëy lan laa a def ya waaw léegi laaj naa leen ko wuy leen ma léegi. waaw am naa benn jëkkër déjà nii non non sama far bees ah ñaata ñaata benn ñaar ñett. mais man mais man ndeke ma de. mais Bella <laughs> ndeke lamu ma de. mais Bella mais Bella tey xam tey exclusivité parce que artistes yi ñu si bëri ñi ay mbër la ñuy daamu ñi football la ban jëkkër nga góor bu baax bu am diine góor bu baax am diine bu responsable gis nga bari alal taxuta responsable damaa bëgg nga déglu li ma lay wax bu baax gis nga bari alal mm-hmm. xale yu jigéen dañoo bëgg xale bu góor bu am 4x4 mën a sol 3 morceaux jasner yor iPhone 14 bu ku kii mu changé gis nga bari alal taxuta responsable jigéen buy ñaan yàlla li muy njëkk ñaan yàlla mooy jëkkër bu am diine ndax bu amee diine di nga mën a mucc yu bari parce que yi muy def ci la lay dugal di nga jaamu yàlla di nga xam yàlla dina yar say doom beneen bi ci des mooy mu responsable xanaa xamoon ni nit a ngi yor jëkkër juy fayee ko ay million bu wéetee ci biir néegam xolam moo gën a sëngam ñëpp ndax bégul nit jëkkëram ngi fayee ñaar fukki junni muy reeree soom bi par saa yi mais moo gën a bëgg ci jigéenu àdduna bi xam nga lu tax jëkkër ja dafa responsable gis nga jigéen dafa soxla ku koy jege. ku koy won ni yow la di ko jaay ku koy won ni yaay sama yaay doom ku koy won ni yaa ma tere nelaw mais am na ñoo xam ni seen jëkkër da leen di jox alal dëkk leen kër gu baax gisuñu seen gisuñ seen jëkkër mm-hmm. day doxaan ci dëkk bi fi def ay teraanga donte yaa ngi mais bégoo mais ki xam ni fukki dërëm la yor mbëggeel ji sax ci seen diggante parce que dafa am lu am solo ci sëy mooy bëggeel nit soo ko bëggul doo ko muñal nit soo ko bëggul lu mu def nga takk say bagage maa ñibbi sama kër yaay mm-hmm. parce que bëggoo ko mais nit soo ko bëggee bu mu gënal la lépp li nga dët ma leen dong la mooy sëyal ko muñal ko duma ko bàyyi mu wéet duma ko bàyyi mu jaaxle duma bàyyi ay noonam di ko ree duma bàyyi ñuy xam lu mu ñàkk dinaa muñ biir muñ biti dinaa ko sagal saa su ma nekk te fu mu nekk ma nekk ci ak moom ndax ma am njaboot gu barkeel parce que parce que euh, doom ji jigéen jàngaandiwul nday jaay roy roy kaayam mais boo liggéeyee boo xëyee sa doom dina gont mm-hmm. mosoo gis nit ku mun ci sëy sonn mun ci sëy te amul doom ju ñuy dégg su fekkee su wuutee li ñuy ñaan yàlla mooy na fekkee mm-hmm. mais damay sëyee nu ma neex def nu ma neex doo am lu la neex munu sëy nu la neex defee na neex am la neex déedéet mënul nekk da ngay sëy muñ jaamu yàlla déggal sa jëkkër def ko xarit mais jëkkër ji ngay sëyal tamit na xam ne jigéen la yor na xam ne jigéen la yor na xam ne jigéen dañ koo war a yërëm dañ koo war a wod dañ koo war a yiir dañ koo war a dëkkal dañ koo war a dëkkoo waaw loolu tamit na ko xam parce que jigéen bu lay muñal na fekk ki muy muñal tamit xam ni mi ngi koy muñal kon as gor moo jar a su gore pas parce que nit mën ngaa lekk gor mais gor su gore laa gor su gore waaw sama naataango ngi toog sama doom Abdou Aziz Ndiaye macha lay nuyu <laughs>